gan gi soxna bu Bousso bokk ci coalition Yewwi Askan Wi ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la ci matinalu réew FM Maimouna. may nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi leen di teewlu. Mhm. Maimouna seen coalition bi di Yewwi Askan Wi euh, dafa dàq ab euh, manifestation bu mun na namoon a amal ay bés bi ñu génn ñu bëri nag jàppee ne deltu ginnaaw la ndax xëy na ragal takk der yi dalaat seen kaw nanu ko defee woon euh, ca seen manifestation 17 juin bi ndax mën ngaa ñëwaat dëgg-dëgg ci li waral ngeen gàntal boobale manifestation. waaw soxna am ñoo ñu di wax ni dañoo dellu ginnaaw ay nitu fitna dañu te foog naa ne yërëmuñu askan wi contrairement ak ñun ñi parce que ñun damay fàttali bi ñu wootee keroog kan moo génn ci mbedd mi di xeex askanu Sénégal ndaw ñi ñoo génn ci biir ndaw ñoo ñu président Macky Sall ak ay forces de ci lu mat ñetti ndaw am na ci ñoo xam ne ba tey jii ma xeg yow fële ci Ziguinchor jotaguñu sax seen ay néew. kon bu ñu paree ci loolu ñu taxaw jàmmaarloog président Macky Sall te nag delluwuñu ginnaaw ci xeex bi dañu ko ajandi parce que dëkk dëkk bi dafa jub dafa jib ci loo xamante ne euh, dafa am solo muy xale yi nekk ci période d'examen muy ñu nekk ci jublal tabaski muy ñu nekk ci jubal aji màkk yi ak yeneen yeneen i soxla yoo xamante ne askan wi nga xam ne bu ñu wootee moom mooy ñëw di xeex moom mooy ñëw di ñu fekk si moom mooy ñëw di ñu si ñun askan woowu la ñu déglu parce que ñun dégluwuñu ñi nga xamante ne dañuy wër plateau télé yi di wax ak ñi nga xamante ne jàppee nañu ne ñoom bu ñu tudd ñu yeewu askan wi rek wax ji du am solo ñun askan wi ñuy woo te ñu ne ci seen biir kër yi askan woowu am kontaan te am mbégte te ñoo ñëpp doon ñu demander ne ñu euh, euh, heure bu ngeen wootee xeex dinañ ànd ak yeewu xeex mais jamono jii ñu nekk nii am na leneen lu nekk suñu kanam parce que ñëpp xam nañ ni peuple sénégalais kanam dañoo nekk peuple boo xamante ne euh, ay mbiru tabaski ki korite ak yenn fête yi dafa am fu ñu ko teg parce que dañu nekk ay nit ñu gëm kon nag foog naa ne ñun bu ñu bu ñu delloo ginnaaw askan wi la ñu déglu wante delluwuñu ginnaaw parce que lan doon xeex dañ ci am luñ ciy ragal wala luñ ciy seet parce que nag am nañu sañ-sañu ne ñun ñii tey ñoo protéger stabilité réew mi ñun ñii tey ñoo yërëm askan wi parce que xeex bi ñuy xeex ni président Macky Sall wane na ni Sénégal yëpp buñ ci daanu woon dee sax moom du ci dellu ginnaaw mm. alors ñu bëri nag wax nañu itam ne ay kilifa diine ak i homme d'affaires société civile bi dox nañ ci tànki jàmm yow bu ñu la déggee askan wi rek ngeen dégloo ana lan moo waral ngeen deltu ginnaaw ndax askan wi la wala ña leen ñaan njekk Uh, man nag uh, du ma wax ne uh, nit ñi ñaanuñ ñu njekk parce que man mi sama jëm bopp lu bare oo nañ ma ñaan ma njekk am na ñoo xam ne dox nañ seen i tànk mi jóg ñëw ci ñun am na ñu woote am na ñu ñëw ba ci ñu muy ay société bi muy homme d'affaires mais itam il faut ñuy waxante dëgg gis nga moment bi ñu jël décision pour euh, ne dañuy surseoir sunu sunu manifestation. Hmm. du ay ay médiation la déglu parce que gis nga xeex bi ñuy xeex bi xeexuñu ko pour suñu jëmm ñi ba ay médiation duñu ko tax a teg wala duñu ko tax a teg gi parce que jàpp naa ni bu fekkente ne loolu kese moo tax kon Sénégal kenn du fi xeex parce que boo yëkkatee xeex di nga am ku la ne bàyyi di nga am ku la ne tegal. ah naam am na solo parce que ay nit lañu ci askan wi la bokk dañ leen di déglu mais di gën a am solo. Hmm. mooy déglu jàpp ne xeex bi ñuy xeex bisu le 17 président Macky Sall dox ci kaw néewu sénégalais yi xeex bi ñu xeex le 17 askan askan bi wàcc fekk suñu ndax keroog leader politique yi sax dañ leen barricadé ba génn ñu sénégalais yi ñoom ñoo génn kon sénégalais yooyu lépp lu ñuy def ñun dañ leen di jiital ci kanam gis nga bu fekkonte ne sénégalais yooyu dañoo wax ne nañu dem xeex. même bu nit ñi defoon ay intervention duñ ci mën a dellu parce que li ñuy xeex askan wi moo tax ñu di ko xeex amuñu nag benn benn benn manque de respect bu ñu am ci médiation yi kilifa diine yi ak ak délégation yi mais ñooñu dañu war a xam ne itam ñun dañoo nekk suñu rôle rôle bi ñu nekk mooy taxawal askan wi parce que nag il faut am ñu féetewoo seen bopp foofu te ñun foofu la ñu féetale suñu bopp. Mm-hmm. donc li nga xam ni moo gën a peser sur la balance c'est la volonté populaire c'est l'écoute du du peuple parce que sénégalais yi foog naa dans leur globalité koo ci laaj da wax ne nii la ko bëggee woon gisoo benn sénégalais bu génn euh, ne malgré que dañuy taxaw moom day continuer ñaxtu day continuer xeex. continé woon ngeen xeex bi ak concert de casserole wante melul na mu meloon ca njëlbeen maanaam woote gu njëkk ga lan nga jàpp ni itam moo waral loola. waa loolu am na xam nga loolu itam dafa dañ koy nattaat bu baax a baax parce que dëgg la. deuxième concert bi xëy na préparé wuñu ko à temps parce que dañu ko annoncé le même jour euh, ni mu ni mu riire woon riireewul woon noonu euh, ci ñenn ñi niñ ko waxee mais il faut ñu wax tamit ñooñu dañu ne woon riir bu njëkk bi du woon du woon sénégalais yi ñoo wuyu si yeewi askan wi dañu ne woon ambiance a taxoon di wax nit ñi jóg kon nag xam nga nit da ngay xam loo bëgg hmm. bu nit ki Sénégal yëpp riiree ba adduna bi yëpp di ko bind ñu génn daal di koy démystifier nit ñi amul benn solo tey ñu génn ne riir bi ka taxu ko woon tal noonu nañ jàpp rek raison yi tax ñun ñu ñu ñu ajandi suñu manifestation raison yooyu rek moo fi nekk nii mooy mi ñi dañoo ne ci yoonu tabaski wutum xar wutum dépense dëkk bi metti lool nag soxna Fatou Thiam mm. dëkk bi metti lool sénégalais xamuñu nan lañ nar a jullee kii lépp yokku situation yi ëpp seen bopp kon foog naa ni jamono jooju noonu euh, am na loo xamante ne sénégalais yi tal nañ ko leneen lu dul det au combat aussi ma jàngat ci itam lenn mooy sénégalais am nañu déception am nañu déception bu mag a mag a mag Euh, ci le fait que ñu ne leader yu askan Askan Wi ñu bokk ci législature bii di ñëw ñun nag ñu leen di ñu leen di invité ne leen déception boobu ngeen mën a am tamit jàpp leen ni Maimouna Bousso mu dem assemblée wala beneen xale bu jigéen bu dem assemblée lépp benn la l' essentiel mooy Yewwi Askan Wi muy suppléant muy liste titulaire hmm. ñëpp ay nit ñu am valeur lañu ñëpp ay nit lañ yoo xamante ne bu ñu demee foofu seen taxawaay dina mat te incha allah dinañ dem d'accord alors ñu wax ci législative yooyu ñu bëri ñu ngi wax ne dañu ko war a dàq ngir xëy na euh, gën a waxtaan gën a defaraat euh, jafe-jafe yi ñu nemmeeku ci processus électoral bi ànd ngeen ci boobu xalaat. déedéet mënuñu ànd ci boobu xalaat parce que xam nga mbiru législative nit ñi dañ koy soofantal. foog ni nit ñi dañuy dem assemblée pour nekk député ami oto loolu taxul nit ñi dem assemblée nationale. assemblée nationale foofu mooy pencum ndaw réew mi foofu la ñuy voté loi yi nga xamante ne mooy tënk foofu la ñuy voté budget bi nga xamante ne mooy alalu askan wi naka lañ koy doxalee donc foofu euh, dañ fa war a dem opposition bi da ko war a téye ci loxoom pour tere président Macky Sall dérive yi mu nekk di def nii assemblée nationale dafa am solo lool lool lool lool lool. élection assemblée nationale bu ma yeboo sax ëpp na solo élection président de la république donc lan moo war a mën a tax ñu di ko aj wala di ko di ko fomm. Euh, pour pour pour dara duñ ko def élection yi ñu dañoo d'accord ñu respecté calendrier le 31 juillet. Mhm. bëgg bëre bañ bëre président Macky Sall day sëgg di bëre lu ne nag def na ko. invalidé suñu liste yi indi fi coow indi fi crise naroon fi indi sax nag benn situation boo xamante ne mooy ñuy manifester nit ñi di dee te loolu ñun moom lañ ko dul may parce que ñun askan wi génn di ñu xeexal du ñu nangu moom comme nangu na dox ci seen kaw ñun du ñu nangu moom teg askan wi suñu diggante ak moom moom muy faat askan wi pour ñun ñu egg ci moom moo tax nag ñu jàpp ne askan wi ñun dañ koy làq suñu ginnaaw ñu denc seen ay carte électeur bi su élection ñu voté ñu ñun ñu ne ci kanam loolu mooy responsabilité bu ñu jël en décidant d' aller à ces élections là te je pense que peuple bi tax ñu jël ko ñoom am nañu maturité bu toll ni comprendre nañu décision bi ñu jël. yéen a ngi yaakaar ba tey cohabitation mën a nekk. cohabitation dafa mën a nekk parce que nag li ñu taxawal du du ay liste euh, suppléant wala wala liste majoritaire moo koy hmm. taxawal li ñu taxawal mooy euh, une coalition. Euh, wàllu yeewi bu nga xam ne dañ ko def ci département yi parce que élection législative ça se gagne dans département yi ngay dajale cumuler ko am ñëw am ci benn quotient boo am national te jàpp naa ni li jóge ci élection locale yi ak nii ñu tëggee département yi muy Dakar ak feneen ak Pikine ak Mbacké ak feneen ak feneen incha allah euh, l'opposition dina gagner département yi te bu gagner département yi dina majoritaire à l'Assemblée nationale te sénégalais yi dinañ xam lan mooy solo yi jël oppo jël jël pouvoir euh, assemblée nationale teg ko ci loxo opposition parce que président Macky Sall nag dootul mën a yàq alalu askan wi dootul mën a dogalee nu mu ko neexee di yàq di changer ay constitution di def ay modification heure bu ko neexee au moins askan wi dina mën a am doole bu mu mën a téye yenn yi demuñu fa nag pour bloquer doxalinu réew mi parce que foog naa ne ku bëgg 2024 ñu jox la réew mi 2022 doo dugg assemblée di yàq ki bloqué. donc ñun on sera à l'épreuve sénégalais dinañ gis ndax dinañu proposer ay lois yu am njëriñ et puis sénégalais dinañ am aussi possibilité am visibilité est-ce que ñii 2024 war nañu mën a yëkkati réew mu jox leen ko ou pas. ci ba ñu noppee ci légis investiture législative yi euh, Yewwi Askan Wi yëngu woon na lool may a Bousso ndax tey déggoo am na fa. waaw mën naa wax ni yëngu-yëngu yu bëre dal na parce que am na ñu bëri ñoo xam ne meroon nañu dellu si nañu. loolu mënta ñàkk ci coalition parce que ñëpp yemuñu ay ay taxawaay am na ñoo xam ni dañuy ñëw pour wutal seen bopp am na ñoo xam ne itam ñu nekk seen ginnaaw ñoo bare ba frustration yi mënta ñàkk mais foog naa ni léegi li xale yi di wax euh, euh, tournons-nous vers l'essentiel l'essentiel c'est dem ci élection yooyu loolu ñun dépassé nañu ko dépassé nañu vraiment remous yooyu ñun li ñu amal solo. waaye ba léegi am na ñoo xam ne gisuñu dégguñu leen dañoo mel ni ñu téye seen bopp ci coalition bi. waaw xam nga nag nit boo téye sa bopp ci coalition tamit jàpp naa ne képp kuy acteur politique mënoo téye sa bopp ci askan wi mënoo téye sa bopp ci soxlay askan wi sa bëgg-bëgg wala sa ay frustration bu demee nag ba ëpp sa yéene ci askan wi loolu yow la ak sa parti ak askan wi mais képp koo xamante ne li la taxoon a xeex mooy euh, changer nekkinu askan wi foog naa loolu combat yooyu ñoo fi nekk ba léegi problème yooyu ñoo nekk ba léegi te ñi mun soxal ñooñu ñu ngi ci xeex bi ba léegi dugal seen loxo te nag ndànk-ndànk les gens aussi parce que tamit nit ki mënoo mer ak vitam aeternam euh, donc lu mu mën a téye tamit jàpp naa ni boo ko waxee benn yoon ñaari yoon war nga mën a tourner la page avancer en tout cas ñun on avance vers l' essentiel parce que soxlay Sénégalais yi mu suñu kanam nekkul suñu ginnaaw. Mm-hmm. alors Maimouna Bousso am na ñuy euh, wax ni itam jaloog euh, war naa mën a am ndax euh, élection législative yeeg yi fi weesu yëpp jur na coow naam waaye waxtaan moom mënta ñàkk jaloog boobu yow yaakaar nga ne war na cee mën a bokk ak naka la ñu ko waroon defee bu fekkee dana am. soxna soxna Fatou Thiam man de jàpp naa ni sama yeewi dëggalee man mi Maimouna Bousso. Hmm. président Macky Sall lu ñuy dialogue it moom ak amul parce que président Macky Sall du nitu dialogue président Macky bi opposition bi toogee fii ba léegi. amul yoon bu mu wootee dialogue nit ñi fekk si wuñ ko. Ah, mais président Macky Sall balaa wootee. Hmm. balaa wootee dialogue rek nekk ci nekk ci xat-xat wala nekk situation yu difficile bu boobaa mu daal di décider xool ay porox ndollam lan lay dialogue yi nit koo xamante ne respecté woo constitution respecté wuloo sa peuple respecté wuloo démocratie te yow jaawale nga réew yi ndax président Macky Sall dama yaakaar ni des fois dafay tëdd di gént jaawale réew mi mu jiite ak réew mi mu yaakaar wala réew mi mu bëgg a jiite réew mi mu jiite nag mooy réewu Thierno Souleymane Ba réewu Cheikh Ahmadou Bamba réewu Seydi Hadji Malick réewu Ndiadiane Ndiaye réewu Lat Dior Ngoné Latyr réewu Aline Sitoé Diatta ñu Yacine Boubou réew mi nga xamante ne jigéenu ndeer yi dañoo bañoo na ñu noot leen ba ñu taal seen bopp réew mi nga xamante ne ñun suñu culture fii ci diggante Siin Saalum Bawol mooy réewu bañ réew koo xamante ne kenn mësta nangu ku ñu noot est-ce que réew moom dina taxaw tey di accepter président mag Sall di ko noot moom ci ay bëgg bëgg wala di ñu delloo ginnaaw ñun réew mi amul benn buur benn buur bu mës a nangu bu Sénégalais yi mës a nangu mu buuroo Sénégal gi yëpp dañ koo daggoon ay pàcc pàcc buur bu nekk samp ay ndëndëm di xeex ak moroomam kon tey ji président Macky Sall bu bëggee jàpp ne réew mi ñu tënk léegi def ko république def ko Sénégal moom dañ koy jël teg ko ci loxo mu di ci def lu ko neex heure bu ko neexee ak nam ko neexee mais dafay dafay dafay nax boppam parce que ñun duñu peuple boobu Sénégal du réew moom na dellu siwaat xelam xam ni réew mi du dictature de réew mi ñun ñii di opposition bi sax bu ñu tegee woon ne Sénégalais ci seen jëmm bopp ñoo nekkul askan woo xamante ne dañuy accepter nit di leen noot noonu la ñu yàlla bindee ci suñu ADN la ci suñu deret la. Mm. moom nag jàpp na ne réew mii di Sénégal li ñu mayutoon Abdou Diouf may ko Abdoulaye Wade may ko kenn moom mën naa pexe ci ay pexe ci ay jéggi ay néewam. ci ay réprimer euh, def répression ci askanam ak yeneen ak yeneen i xoqatal éliminer ay adversaires politiques mën naa jël réew mi soumettre ko loolu foog naa ni peine la parce que du ci am ndam ay mbiru dialogue ak waxtaan ak toog ak concerté wu rapport de force bi mu bëgg dinañ ko ko apposer à la hauteur de ce qu'il faut tout en protégeant nos peuples sénégalais parce que tey nag opposition bi moom mooy protéger askan wi ndax opposition bi su bëggul woon protéger askan wi kon ba tey mu ngi ci mbedd mi di xeex mi kan mooy dee sénégalais yi parce que moom ba tey jii may wax ak yow am na ay néew yoo xam ne fële ci Ziguinchor delloowuñu leen seen ay mbokk parce que dañ leen faat te nëbb bëgg nëbb faatin bi ñu leen faat est loolu lu jaadu la ñun nag suñu responsabilité du compter ay moor fii ba ñuy egg ci pouvoir bi suñu responsabilité mooy protéger suñu askan mais continuer taxaw di xeex xeex bu mat ba àdduna yëpp xam ko pour que démocratie bi nga xam ne ñun liggéeyuñu ko suñu ay bu waajur ñoo ko liggéey teg ko fi ñu fexe ba démocratie boobu mu sut ay fan président Macky Sall bu ëllëgee kenn du wax ne bis bi président Macky Sall bëggoon jël réew mi def ko réew buur dafa am ñu tëddoo ñun bokkuñu ci ñooñu. Mm. bokkuñu ci ñooñu te bokkuñu ci réew mi kenn du ko tëral kenn du ko tëral di ko rendi nit ñi wutee xaaru tabaski di ko rendi réewu Sénégal la réew mu taxaw la te bu soobee yàlla incha allah réew mi dina am toujours ay nit ñoo xamante ne ñoo taxaw comme ni ñu amee woon. Mhm. ay nit ñu taxawoon démb ak barki démb. mooy doon laaj bu mujj bi may mun a dégg nañu ñenn ci ay activiste kenn sax ci yéen la bokk euh, Assane Diouf mu ne benn kilifa diine dootu fi ñaan njekk ba ñu may ko ko ndax ñoom euh, jàpp nañ ni ñooñee tëddeewuñu njaxanaay président Macky Sall la ñuy faral ci waxin euh, ndax loola booba yooya kaddu moo méngoo méngoon ak xalaatu waa Yewwi Askan Wi. déedéet waaye yeewi askan wi ay taalibe lañu koo ci gis ku nekk dafa am ci kër kuréel goo féete te foog naa ni itam activiste yooyu seen waxin waxuñu dans le sens où respecté wuñu kilifa diine yi parce que ñoom ci seen bopp ay taalibe lañu xëy na nag dañ ñu comprendre euh, euh, dënnee xale nu mu mën a tëddee parce que ñëpp dañoo gis euh, mars 2021 bi réew mi demee ba nga xamante ne président Macky Sall ñàkkoon na ko ay kilifa diine ñoo yëkkati seen kàddu pour mbir mi sedd loolu la ñu jàpp ne nag président Macky Sall heure bu heure bu ko opposition bi jekkoo rek dafay am ñu ko ñaanal njekk mais man damaa jàpp ni kilifa diine yi nii ñu taxawee noonu rek lañ mën a taxawee parce que ñoom tëddee njaaxaanaay rek mooy seen cër parce que ñoom ci seen biir euh, njaboot googu kenn ku nekk nga fa opposition nga fa pouvoir nga fa te ñoom nag dañoo nekk nit ñoo xamante nit ñu yiw nañu nit nañ ñoo xamante ñoom du ay opposant ñoom dañoo war a ñoom Euh, yedd kilifa ci ci ci ci ci ci biir ci biir néeg kilifa kenn du ko yedd ci penc comme ni ñu koy waxee mu bokk mm. suñu culture ñun ñoo moom bu ñuy xeex ñu xeex ci penc mi parce que li ñuy xeex dafa war a transparent dafa war a leer kenn warta dugg ci ay rukk di négocier ay quoi que ce soit opposition ça su fait la place publique mais itam nañ nangul kenn ku nekk cëram nañ nangu ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo yore diine ji ñi nga xamante ne ñoom ñoo féetewu ci wàll boobu ñooñu mënuñoo taxaw di wane seen ñàkk d'accord ak di wane seen d'accord ci ci kaw ci kanam place publique te itam dafa am ay gëm-gëm yu ñu am ni réew ni nguur yàlla moo koy joxe ba tax na ñoom duñu xeex nguur du seen cër du seen responsabilité seen i waajur defuñu ko woon seen i maam defuñu ko woon te ñoom du loolu lañ war a def ñoom li ñuy def rek la ñu war a def mm-hmm. ñun itam ñuy def li ñu war a def kenn ku nekk na nangul moroomam li mu war a def kilifa diine bi day toog di ñaan tëddee njaaxaanaay opposant bi dafay taxaw di opposé wu ba mu mat sëkk parce que loolu mooy cëram kenn ku nekk rek bu matee cëram ba mu mat sëkk rek gëm naa ne jafe-jafe du am ci diggante bi jërëjëf Maimouna Bousso amoon nañu mbégte dalal ci matinalu Rewmi FM tey fàttali ni yaa ngi bokk ci Yewwi Askan Wi jiite itam lii di euh, mouvement force citoyenne jërëjëf Maimouna maa ngi lay gërëm di la sant di leen yaa ñaanal ngeen yendu ak jàmm ak salaam